koor ku na xam ne weeru social la weeru moment de partage la moment de communion la kon pourquoi pas ñun tamit ndax nee naa yiw du doy fa ñu jëm jox tàndarma nit mu lekk ko rek yiw ba ci nekk ku ne oustaz yaa ngi koy wax saa ne kon ñun tam dañoo bëgg a bokk ci loolu moment boobu waa Ouest Foire génn parce que tout le temps dañuy wax Ouest Foire dañuy dañuy tëju dañuy tëju maanaam il est temps ñu génn ànd te alhamdulilahi rabil alamin suñu sœur yaa ngi nii vraiment nga jël leen ñoom ñëpp suñu sœurs yaa ngi ñoom ñëpp ba mu leen ko waxee ñoom ñëpp dañoo ñëw accompagner ñu vraiment maa ngi leen di jaajëfal ñu nekk ca waañ ba ñaa ngi leen di gërëm leen di sant suñu càmmiñ yaa nii ñoo jàpp ci togg suñu jigéen ñi kenn desul leen wax leen leen jaajëfal ñaan ramadan bi yàlla nañ ko fekkee ay déwén yi déwén maa ngi jéggalu bu baax ndax wax mëneewu ma ko bu baax mais vraiment maa ngi jaajëfal góor jigéen mag ak ndaw di ñaan rek nañu ànd booloo nekk benn ndax mbooloo nekk benn mooy tax lu ñu bëgg ñu am ko suñu biir gox bi lii tàmbali la rek te ñaan nañu yàlla tey suñu Ouest-Foire ñu dem ba tey ñu paaveel ñu ko suñu Ouest-Foire sécurisation bi yëpp mën a yemb mais loolu yëpp c'est dans l'unité lañ ko mën a amee